dans la délégation sénégalaise. Du nuyu Sénégal je tiens d'abord à dire à tout le monde. que ñàkk xam Il y a le développement humain et la réussite. dis que qui va diriger demain le Sénégal. alaikum mbokk ñi setan donc une télévision Prestige le lëkkaloo ak seen site internet www.prestigethies.com ñu am mbégte bu mag dellusiwaat ak yeen sen émission bu mag boobu tudd le plateau de la campagne comme niñ ko waxé won rek ça su nek dañuy dalal fi euh, ñi nga xam ni ñoo nek ci langue politique yi euh, ak ñi nga xam ñoo nekké sax ci bor bi euh, képp koo xam daal élection yi intéressé na la wala yaa ngi ci biir fii sa plateau la ñu baaxoon nag du recevoir surtout nag les partis politiques

donc salam salaamaaleykum beaucoup Thiès Prestige Je ngi am mbégte de fi tey maa ngi tudd Cheikh Gueye di responsable jeune réew mi Thiès nekk conseiller municipal ci commune Thiès Nord voilà. donc kooku mooy Cheikh Gueye donc dégg ngeen ko sama càmmoñ. Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu internautes yi nga xamante ne ñoo ñu www.prestige.com euh, les téléspectateurs aussi yi nga sur vous à travers votre télévision le remercier doyen Mbengue ci invitation bi donc man euh, seen un euh, seen xarit Boukounta Tambay responsable départemental euh, des jeunes de l'UCS mo ñëw tay ci plateau bi ngir janoog sama mbok sama xarit Cheikh Gaye bi nga xamanteni mi ngi ci coalition IDI 2019 donc ma toogal fi tay la grande coalition pour la majorité présidentielle Eh, kon question bi njëkk bi sax yow lañ ko jagleel parce que démb gis ni que eh, sen candidat Macky eh, Sall bo def na fi Thiès meeting naka événement bobu naka la démé nak mën nga ñu ci waxtaan nak li ngeen ci doon yaakar am ngeen ko wala naka la événement bi démé meeting suma né dañu amone ay natable yu ñu amone Thiès natable yoyu yalla dogal na romb nañ ci liñ ci doon xaar parce que meeting mu démb ku fa ñew

wax dëgg yàlla gis ni am na lu xew boo yàggee nekk bañkat yi dem ba ci digg ba euh, xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon noonu la ko président Macky Sall waxee démb te jàpp naa ni Thiès démb wane nañ seen jàppandal wane nañ seen bëgg-bëgg ci Macky Sall démb daal daanaka foo sànni mbatt mu toj. jàpp nga ni donc Thiès waaye comme ni mu ko waxee donc dellu si nañ ci Macky Sall. Thiès mokk na rumbux Macky Sall ay borom. Euh, nga euh, bu lu mu wax mu wax ci événement boobu ñu doon organisé démb la venue du président Macky Sall du candidat Macky Sall à Thiès. ah yéen réew mi bu ñu nee Thiès ah ñëpp dañ naan fief réew mi la ñu gis donc ñoom ñu def fi mobilisation bu mag boobu ndax Cheikh titulu la. no non mënuma tiital parce que yaakaar naa ne ñoom seen mobilisation bi ñu doon bëgg nga xam ne moo tax ñuy wax mobilisation liñ ci daj pour am loolu loolu taxul ñuy mobilisation xam nga mobilisation boo xam ne yow yaa ngi wax jasab c'est vrai que nit ñaa ngi génn taxaw jasab ak feneen ak feneen mais yooyu nit fu ñu jóge jóge wuñ ñen ñangi ngi jóge ñun rond Ngent bi dem ñu ngi préparer suñu caravane on a trouvé des gens là-bas ñu wax ñu Tivaouane lañ jóge pour xaar président Macky Sall fi nga ñëw ci suba gi avant heure meeting bi ñu ngi gis bus yu jaune yu garé rangalé ci bir Thiès pratiquement démb hôtel boo dem dafa fees dellu si Thiès des gens yo xamni qui sont des méconnus de Thiès qui viennent de toute part pour venir renforcer la mobilisation donc nak wala fi dañuy wax ni kuy jaaxaan di saw sa bopp moom sa bopp ngay nax rek sa bopp ngay toyal maintenant nag s'il pense que ñom Thiès est dans leur poche ñoom ñoo ñu ci gëna xam dara té inshallah le 24 ah, soreetul. bu soobee yalla loolu mom question laa koy teg maanaam euh, Cheikh euh, gis nañu que euh, ce candidat ñu ngi wër Sénégal yéen aussi yéen ngi yëngu fi ci biir Thiès est-ce que vous êtes confiant est-ce que japp même ce candidat c'est le meilleur candidat et pourquoi. non xam nga ñun on a un produit bo xamni qui n'est pas difficile à vendre muy est le président Idriss Seck nga xam président rek la fi doonagul té bi mu fi nekkee premier ministre war na sénégalais lu mané bim bi mu maire Thiès aussi war na Thiès ni man defara ma tax a jóg la preuve moy ba fi jógee léegi la mu fi bawone tay ji Macky Sall ay peinture la indi pendant sept ans tëj suñu stade boba ak légui ñëw na xam ni il faut mu ñëw teg daxar ci loxo Thiès way ñëw peintre suñu stade ni voilà j'ai fait quelque chose à Thiès ak suñu auditorium bi nga xam président Idriss Seck moo ko réalisé maintenant loolu soo gisee yàlla def ah, yàlla moo àtte parce que Idrissa a été victime d'un complot d'État pendant des années mais mu nekkoon un incompris mais mu am lu mu gëm rek dañuy wax naan buntu boo yàgg fëgg bu yàggee mu ubbeeku le moment est venu nag sénégalais yi xam nañ carrément ni moom wéetoon na ci dëggam gi léegi nag ñu ngi ko si fekk si parce que boo xoolee ba muy tàmbali ñi ko daroon ak ñi ko dar léegi ay kàngam lañ occupé fi ay poste de responsabilité yu gën a kawe ci état wu Sénégal tey c'est des gens yoo xam ne tey jii du ay como duñu ñu ñàkk fayda boo xam ne tey jii dañuy topp ci ginnaaw nit te gëmuñu ko ay chef d'entreprise ay ancien premier ministre ay kilifa yoo xam tey jii Sénégal yëpp nangu nañ ñii xam-xam lañu am nangu xam nañ ni topp ñu ci Idrissa Seck ngir intérêt wala leen mais Sénégal moo leen boole. Ah. te tey la preuve dëkk bu mu dëkk tag dëkk tànkam. ñoom contraire bi nga daan dégg ñu naan la saignée orange continue ah. maintenant c'est le contraire. Ah. <laughs> plaies léegi léegi suturé wu na ba cicatrisé wu ba bañ sax léegi. si ñoom la seen i njaboot di bàbbi ko di ñun kon pourquoi pas duñu am confiance C'est xam ni question de jour la ñu ngi xaar le jour Inshallah, nous ñu mën koo dëggal Sénégal connaître la véritable émergence Inshallah. donc euh, dégg nga euh, buur dégg nga Cheikh hein, euh, la wax ci candidat am candidat Idriss Seck c'est le meilleur candidat candidat Idriss Seck moom la Thiessois yi bëgg pourquoi nga jàpp ni Thiessois yi war nañu tel président Macky est-ce qu'il a un bilan à Thiès xam nga Idi c'est un soit comme nous euh, Lamine xam naa ni man euh, dama jàpp ni moom Congo la nekk newul Sénégal parce que jàpp naa ni boo xoolee li xam te ne moom Sénégal dama koy da nga namee tuuti rek ma ñëwaat tuuti ci mobilisation bi avant may dem ak moom ci li Idi jot def actuellement sur cette tournée ak euh, les soi-disant retraites politiques yi mu àndal wàllu mobilisation xëy na moom li muy wax naan ni dañ leen a jëlee Tivaouane <laughs> d'accord xëy na xalaatam la rek waaye ñun on a été on est de Thiès gis le meeting d'ouverture bi fi am gis les militants qui ont quitté Kaolack les militants qui ont quitté Durban pour venir au meeting de 17 la coalition IDI 2019 nous on était là nous savons exactement ce qui se passe Thiès Thiès nous fi nous nous IDI en 2007 les gens faisaient confiance à IDI. 2007 mais malheureusement tel n'est plus le cas ils peinent actuellement à à vendre le produit dont ils parlent mais IDI, c'est un produit qui vraiment qui ne peine pas voilà à être vendu c'est un produit facile à vendre mais non un produit qui que tu es en train de vendre depuis 12 ans. Tu perds à la vendre. En 2007, nous avons vu le résultat. Il est classé deuxième, d'accord. Mais en, 2012, qu'est-ce qu'est-ce a été Il est classé à quelle position Mais c'était un homme sabeur en 2012. Encore une fois, nous venons en 2019. Voilà, c'est encore la confiance qui revient, mais la confiance voilà, ne, vient pas à son heure. Il n'y accompagne que des retraités politiques. Il ne parle de, premier, de, de premier ministre. ministres. Mais nous l'avons vu.

Le Sall bilan du mu def Thiès euh, euh, coûte 150 milliards def ko sur la région de Thiès ça c'est déjà tout simplement un acte fort pour appuyer le président Macky da ngay xol autoroute yi nga depuis 2012 on avait fait 32 km d'autoroute.

fu ndox doon jaar tey bu ma fa jaaree avec le pavage da exactement est-ce que je ne suis pas en Paris mais ça c'est avec Macky Sall c'est parce que c'est un visionnaire Macky Sall ne traite pas pour une seule raison il faut que Sénégalais yi xam loolu man je suis Thiessois je suis fier qu'on ait un tiers buy liggéey ak tiers. mais un président dafa doon quelqu'un boo xamante ni dafa am une posture nationale du benn dëkk Macky Sall dëkk que dem tey wax dëgg yàlla boo nee jàkk di xool di nga xam ne lii fi def

les votes se font dans les départements, dans les, communes, etc. etc. ñu vraiment ce que qui a été fait à Thiès Nous avons est-ce que vous êtes en phase. non d'abord problème que yow Thiès il te du national. voilà le problème xam nga man euh, Macky Sall a am Thiès parce que am xam nga da gis nga gor bu ba ay nit xam moy dig boobu mu réaliser ko milliards yi nga xam mom lañ ko nattal pendant sept ans lan la ci yene Thiès peinture essad peinture euh, auditorium réfectionné defal rek réfectionné il nous avait parlé de réfection mais il a fermé le stade pendant ñaata at sept ans il revient avec ses pots de peinture pour peindre ko et la veille il a fallu que le monde sportif qu'il soit... duñu ñoo waxoon de parce que su politiciens yi ñu ne politiciens ñoo mais il a fallu que le monde sportif soit yuuxu kaas ñu door a jóg tey dañu promettre dans quelques mois dinañ ko inaugurer ba le ministre def une sortie xam nga gàcce bu doon ndey nit am na ñoo xam ci wetu Macky Sall wa ak si Macky Sall ñoom faatu nañ bu yàgg wax ko promenade de Thiessois ci deuxième tour élection yi dafa taxaw il avait promis aux Thiessois que su ngeen ma fale dinaa àggale chantier Thiessi. yi mu nekkoon une urgence Il y a il y a des problèmes yoo xam tey le problème du stade je vous parle d'un le stade bi nekk fii au niveau de la ZAC de Thiès nga xamni ni génne woon nañ périmètre bi RDG bi ba génne piscine bi ci ginnaw xam nga lu ñu fa def tay léegi lepp latérite la ak ay denk ak ay ay ay débarras yu kenn xamul lu muy niróo kooku xam nga ni xalaat na pour defar xana Thiès stade benen bi moy tey jii vous parlez de de réalisation il y avait des urgences à Thiès que vous devez faire mais Macky Sall en tant que candidat avait promis la relance des activités de de de, de la régie des chemins de fer. mais mais mais mais mais mais, dafa ñeu démb. qu'est-ce qu'il a fait dafa ndànk rek démb dafa ñeu taxaw ni je vais relancer les activités de la régie des chemins de fer. Avant, après avoir mis à terre cette, société pour créer son formateur pour servir les Français, il revient nous dire que Mandina allait relancer ses activités chemin de fer. Voilà cet homme-là qui est dangereux, qui utilise des slogans tellement beaux pour traiter. C'est le moment parce que nous qui on a été ensemble pour, pour, combattre le système de Macky Sall. Mais Macky il est bon c'est quelqu'un qui est, qui est, en train de recruter comment euh, on a il parle de retraite politique ni muy retraite politique vous savez combien Macky était prêt à investir pour ñoom ñoo jàppale ko maintenant ñun dañu war a changer façon de ñuy politiquer mon cher Bou. parce que yow moi je te connais on est des amis gis nga moment bi ñu toll nii su wax parce que kuy wax di wax ni boo dee dëgg nit ñi xam nañ bu dul qui nit ñi xam nañ Macky Sall c'est un produit périmé dans le cœur des Sénégalais en 2012 daf doon nourrir ben espoir tey jii bañ ko ko joxe wane na lan ka man nous avons un programme qui poser alternative bu doxalinu Macky Sall te inshallah allahu rabbi bu nu sénégalais yi falé man gis nga dama fi nek di critiquer Macky Sall je n'ai pas ce temps man je suis en train de vendre le programme que le président Idriss Seck a établi pour tek ko ci loxo sénégalais que buñ ko falé dina ko réaliser inshallah allah. ak ñëwaat yow léegi Cheikh ci programme bobu ma may boum voyage rapidement pour nous tudd daal ah, ci dama ci wax parce que jàpp na ne il n'est pas bien informé. Euh, dafa wax ci chemin de fer dafa wax ci terre euh, boo xoolee tey chemin de fer jàpp naa li ci Macky Sall def avant 2012 ñëpp xamoon nañ problème mu chemin de fer bi nga xam il demandait plus de 400 milliards pour relancer les chemins de fer Aujourd'hui, jii boo xoolee les 12 contentieux nga xamante c'était les contentieux les plus pressants Macky Sall yëpp réglé na ko actuellement amul benn famille cheminot amul l'a la wax amul benn cheminot retraité wala bu fa nekkoon bu ñu ay indemnité wala bu pensions ay pension de retraite du Macky Sall Faye. la preuve la preuve le meeting d'hier mais mais Cheikh tu m'as terminé le meeting d'hier c'était représentant de indemnité yu ñu nous des cheminots que nous avons reçu toutes nos indemnités nous avons reçu tout tout ce qu'on nous devait à travers tout simplement euh, l'État et ça c'était pas durant l'époque de Macky Sall ils ont ils réglé tout le contentieux tey jii boo demee chemin de faire on est une famille de la parce que Macky Sall a résolu le problème Quoi que tu il va relancer le projet des chemins de mais mais tant soit que peu il faut le croire Macky Sall a fait quand même quelque chose dans ce pays fi a def mais de ko a ans. il a fait sept ans te ans. a ans Il a a fait premier bourse, euh, bourse il y a euh, PUDC, il y a, il y a le PND voilà. Euh, mais, ça ne finit jamais. Mais, mais, regardez, de par le développement communautaire, regardez les communautés. Actuellement, actuellement on ne parle plus d'exemple rural dans ce pays. C'est parce qu'actuellement, on a investi des milliards à travers les villages les plus reculés du Sénégal. Parce que Macky Sall, le que nous, ne le village, nous, fait en 2012 ñooñu tey jii la de ce programme là de développement communautaire à travers Souleymane Diouf qui le dirige et qui le dirige bien d'ailleurs mais nous, avons dit, avec les bourses familiales nous avons au Dakar ngir mën jaay seen nous soxlaatuñu Dakar ngir seen parce qu'actuellement, dans ces communautés là ça marche comme il le faut c'est électrifié l'eau vient euh, de façon courante hein. il y a l'agriculture qui marche qui est actuellement un secteur primaire de notre économie man jàpp naa ne nit ki loo ko bañ-bañ wax dëgg yàlla Macky Sall bilan moom duñ ci wax dañ ko léegi mën a du du xas Macky Sall la ma waraloon bilan Macky Sall ñoom il n'ose pas que li mu def wax dëgg yàlla boo nee euh, wax dëgg yàlla noonu Macky Sall mais gumba guy nelaw sax gumba guy nelaw laa wax de gumba guy nelaw boo ko yoree ni ko lu Macky def mun na lii at lii kon mbokk ñu seetaan que yéen ngi suivre seen plateau de la campagne ñu koy organiser fii ci Prestige Thiès tey euh, suñu invité yi muy Cheikh gay avec euh, mu nekk de euh, coalition 2019, euh, aussi beaucoup de coalition Maki 2019 Macky président ah, donc vraiment il se glorifie candidat un bilan toujours ñu koy cité CMI la cité pays familiale PUDC la la terre donc autant de réalisation président ah, yen ban regard ngeen porté ci Kandé wala lan moy sen programme alternatif par rapport à ça. xam nga d'abord abord damay ñëw ci Promoville ñun ñëpp Thiès lañ dëkk d'abord da ngay dem euh, R100 mhm. kañ lañ xëttoon tali bi ñu waxoon dañ koy défar pour R100 ah, ñaata at ak léegi kër yooyu suñu fóot yéré bu set te noonu lañ ko defee Medina Fall diggante Medina Fall ak Kër Issa nga dem diggante Grand Standing ak Mbour 3 man li ma la CDF bu caméra yi déplacé woon dem filmer ils verront la réalité sur le terrain ku ngeen yàpp ba leen seen caaxaan yi vraiment waaw dafa a non non non a pas non non non non non attendez dama laa déglu dama laa déglu xaaral rek waaw moo tax may wax xam nga bu bëgguma sori sa waay la voilà très sérieux on parle d'élection présidentielle c'est l'avenir qui se joue demal ci ma xam nga Dakar nga wax nga ne exode rural demal ci marché Thiès bi xam nga lu tax marché bi fees dell nii te ma maire bi mënu koo contrôler c'est parce que boo fa demee ña fa dëkk ñi fay liggéey ñëpp village yi wër Thiès la jóge la preuve boo xëyee oto yi nii la ñuy yaal dugg ci dëkk yi di dem ak a dikk man dem j'étais à Pout on me parle de piste man li may toog seetaan télé bi yëpp dama ne ah comme ñoom wax nañ PUDC nañ ko jaayee jàpp naa su ma demee ci village yi dinaa fa fekk ay nit yoo xam dinañ am accès ay piste yu ñu mën a jaar mais man du wax pour wax pour wax pour gagner sama candidat gagner rek mais limay wax ni dama né bu fekkone débat bi day ànd ak ay image yu ñuy gis ñom dinañ wara russa wax parce que image yi leen di tontu da ngay dawal sa auto ba tiim benn pax parce que da ngay nekata ndox mi moko ko dag ko nga dugg ci village bi xam nga la population bi wax ñun dañu faté dañu japp ne néew ñu ci état parce que bu nawet xasse ba ndox ni wat ci suuf keccax lañuy ñuy lekk dañuy couper suñu diggante ak population Sénégal ba nawet bi jall lolu vraiment dafa metti beneen bi mooy ñoom dañuy ba battre campagne dañu ñëw woon ni dañuy jaay seen programme mu te woon ko yoonu yokkute ndekete ñoom programme boobu c'était pas un programme euh, boo xam dañ koo xalaat dañoo ñëw rek taf yëngal ko bokkul ak ñun suñu programme. waaw ah, loolu sa programme dañoo ñëw jël ay kàngamu Sénégal woo leen ñu toog ñu leen ku ci ne volontairement boo amee yéene ci senegal ci domaine ba ngay yëngu kaay wax ci ñu tënk ko tënk ko ci këyit ba ci gis nga handicapé yi nga gis ni tey jii. seen programme bi nga xam moom au niveau national moom la ñu ànd joxe ko dañ ko soumettre président mu insérer ko ci biir programme maintenant léegi nag li nga xam moo am solo mooy que ñoom lañ waxoon sénégalais yi defuñu ko benn wëlbatiku créer ay slogan yoo xam ni boo ko dégloo day neex ci nopp ba boo demee boo gisee da ngay bourse il parle de bourse familial mais bourse familiale bu fekkee da ko koo mettre pour aider ay nit war ngaa def évaluation mais bërki dem nga dégg ben institution internationale génne ni Sénégal c'est classé 49 virgule nangam maanaam tey ji fam ne woon fa da gëna déllu ginnaw té yow nga ne da ko créé pour diminuer xana pour taux de pauvreté au Sénégal ku ñuy nax vraiment ñun li ñu gëm moy ñun nous avons un problème bo xamni dañ ko wara régler d'abord mot suñ programme dañ ko accentuer ci ñett yoy jiitu d'abord moy le Sénégal d'abord li Sénégal mom ñu mom ko ñun askan yi sénégalais gis ci seen bopp mu jëriñ leen taux de croissance yi mën délluat ci sénégalais ñu santé ko suñu poche mais du Sénégal du ko jël jëriñ ay pour que nous nous leen Nous Ben, au Sénégal d'abord. deuxième du problème de sécurité personne n'est en sécurité maintenant Nous ñu fi am ci combien d'enfants sont décédés sont sont volés ñu retrouver ces cadavres démembrés, lu ñaaw ne ci Macky Sall nga ko nous gisuñu ci mesure Nous, sécurité ñu accentué ci armada arsenal pour que dara du leen fàtte peuple bi beneen bi ci topp mooy bonne gouvernance tey ku nga xam ne ni justice bi ni muy doxee neexul sénégalais yi tey boo toogoo dégg tey magistrat yi ñoo ñoo njëkk a ñëw naqarlu doxalinu justice ak ñàkk indépendance justice ñu jël ko jël ay nit koo xam da leen bi dérange ñu jàppale ji ni la ràpp ci kaso bi koo xam ne tey ji indi nga leen firnde ñu jël la génne la Sénégal hmm. bàyyi ay nit yoo xam ni ñu ngi jël ay milliards yi milliards yi milliards ñu leen koy jiiñ élégant sax voudrait won kay tay ñu convoquer leen sax mettre la forme ñu wuy ñu ne ah Mame Mbaye a été convoqué parce que dañ ko cité ci scandale Prodac bu demee ñu mettre la forme mu jàkkaarloog juge bi suñ ko né démal tok defoo dara suñu xam mais il s'est pas inquiété ah euh, euh, nu mu le directeur du COUD borom ñebe ju serji nga xam ne tey ah ñebe ji seer ji de war nañ cee boole baykat yi nga xam ne ñu ngi tek seen ñebe ji seen bay yi gisu ku ko jënd ci vraiment sama waa ah dal doo na waat daal. Cheikh ah dégg Cheikh ah très très critique très critique de de de réalisation du président Macky Sall hein waaw bon mais il faut que quand même ñu ñu avancer dans le débat parce que je sais que di nga di nga ci tontu. mais dama waaw mais dama lay dama lay ci sofal benn question boo paree ci boobu ngurgu ci boobu. parce que il faut ñu avancer un peu. moy manam param gis gis euh

dafa wax ci promo xam nga Lamine mo dàq Cheikh <laughs> mais Cheikh dafa wax sank ci promo ville euh wax ci talibou ersan bi nam yagna euh du won ersan rek parce que dafa amone bo xolé c'est un processus dafa am fu muy jaar boo demee cité Lamine bu cité Lamine bi paré na bo xolé bi nga xamante ne moo nekk hôpital régional danaka ñu ci finition yi euh bi nga xamante ne mooy r dafa amone lu ci xew ñom ils ont un maire bi nga xamante ne moo nekk ci local bi ben, exactement ils ont un xaw travail de récupération euh, les, les les les habitants qui étaient au niveau de R100 avec les et les alentours mais les gens pensaient que c'était la mairie qui le faisait à l'époque mais tel n'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas la bonne information Macky Sall da def parce que de war a def nous wul nous di taf ni c'est Macky Sall qui a fait telle chose mais les gens faisaient des tournées moi je suis à Thiès xam naa la xew bu loolu weesoo li nga xam ne tudd na ko léegi muy marché bi mais ñëpp xam na ni Macky Sall jox na ay instructions yu claire au ministre de la pêche parce que mi ngi woon ci ñoom xëy na xam nañ ministre de la pêche jox nañ ko instructions yu claire mais loolu mais loolu ñëpp xam nañ ko Macky Sall yeggale le bëgg projet yi mu teg biir Thiès mais loolu ko bëggul Thiès duko def loolu ko bëggul investir Thiès duko def Waxna na léegi li nga xam ne moo gëm euh, ci walu euh, pourcentage yi mu wax quelque chose comme ça actuellement UEMOA 70 de sur les endettements les pays les pays les sous-développés en termes d'endettement quand tu dépasses les 110% tu es dans l'excès Macky Sall actuellement avec son régime vous exactement le de l'endettement au Sénégal il est ci 43 les 50 ba 70 Macky Sall avant 2012 en termes tout simplement euh, de de on était à 1,7 mais tout le monde, quand il faisait sa déclaration, avec des chiffres clairs, on a atteint les 16%. C'est mais après wax lu e a aussi nous les 16 Sénégal en termes d'avancée. Euh, en termes de du processus électoral le ma est maxal euh, jàpp naa ne bëgg jamm wessu mu wote ay dialogue national le dialogue national qu'on a eu à convoquer nous woo toutes les parties prenantes l'opposition la la société civile les mouvements des droits de l'homme Macky Sall ci et même les indépendants ñu ñëw tok ñu waxtaan exactement réew mi nan lañ koy doxale euh, ginnaw lolu nak wax dëgg yalla ku bëggul lu jaar yoon man jàpp naa do ko def système parrainage bi gis nañ liñ ci à la fin nous on n'était pas d'accord sur le processus certes mais à la fin gis exactement moi, le moins le plus sûr Nous, actuellement nous ni à travers le parrainage nous avons gis ci en termes de violence mais nous xam na pas en 2019 violence En en 2012 boo comparer 2019 mais comme il y la réalité, le processus électoral c'est parce que Macky Sall ça un ay élection yu libre et démocratique mo fi yàgg am te moo fi am ba tey. la laaj loolu gis nañ ne élection yi pass nga balma que amone na ay bureau de vote yo xamne dafa amone ay candidats yo xamne ne seen bulletin nek ñu fon woon am na ay bureau de vote yo xamne dañu dañoo ubi a euh, donc ces petites couacs là yo xamne peut-être mën na vicier euh, la confiance des gens dama ne est-ce que japp nga ni ce ce parce que quand même yéen yéen organisé que que jël disposition yi dil lañ ko am nañu Sénégal mu ne assurance que ni yoyu do am problème yooyu doo am. ah non lolu mom ah, actuellement japp na ni. Euh, tout au Sénégalais aimerait voter voilà, dans, la paix, dans, la joie et surtout dans le calme. nga jug sa kër dem voter te jàpp naa ne loolu Macky Sall euh, jàpp na lu c'était des erreurs loolu on on le concède amoon par exemple lu tu mel à Touba am des retard de bureau de vote jàpp naa ne xëy c'est pas au sommet de l'État mais ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon exactement il y a eu des retards il y a eu des couacs yoo xamante ne fa

Euh, mais à part ça est-ce que vous pensez que l'unité de le processus électoral est-ce que vous êtes confiant que nous avons élection en toute euh, transparence Madame à gëm Sénégal il élection conditions pour lan parce que bala élection transparente d'abord fichier bi day ci avons confiance fichier doon nañu fi wax ñaari fichier ñetti fichier ba tey ji dara leeru xam léegi kon wóoru leen fichier ba ah, lu tax ki nga xam ne moom moo yor fichier bi dafa wane par parloo ba pare ba pare il est maire d'une localité ba pare toog devant tous les sénégalais ni sama mission mooy fexe ba képp ku war a woteel Macky Sall nga jot sa carte boo bëggee wote ma fexe ba nga dem vote ji mais ñeneen yoonam niw ci te mu ngi ko déroulé parce que tey ji xoolal taux de retrait wu carte yi taux de distribution yi

bu la boo ñëwoon tey di wut dara boo indil kàddante bu bees bi ñun la kii tey ñooñu ñooñu rek day ji rek frustré yooyu xam nga loolu rek daf koo jaroon ñu fexe ba respecté Sénégalais yi wutal leen seen carte d'identité yi maintenant nag primo votant yi bloqué nañ seen i carte d'identité Thiès Dakar Diourbel ñoom ñëpp seen tour de retrait wu carte d'identité moo gën a néew région yi nga xam ne Macky Sall tey dafay jàpp ne dafay gagné ay maatam ay ay ay ay ay nu mu tuddati Fatick soso pour wax la que ni ñoom tey awuñu yoonu teg ñi ci élection yu wér mais nag ñu xam ni moom li ñuy wax naan moom nguur moom buy daanu dara mënta téye bu waree am mu am mbiru yàlla bu dikkee pour Macky Sall jóge fi dañuy abal te insha allahu rabbi gëm na ni 2019 bi Macky Sall dinañu abal ak nu ñu mën a abale parce que fi ma ko teg mooy boo xoolee liy feeñ ci ci ci ci ci dënnu nit ñi sondage bi boo defee sondage boo def Macky Sall c'est classe bu classé wul deuxième troisième lay classé. maintenant leen dese mooy di di waaxu nit ñi naan dégg nañ préfabriqué nañ seen i seen résultats mais s'ils veulent mettre le pays en feu rek nañu oser jéem a présenter les Sénégalais résultat bi wax ne Macky Sall jàll na premier tour. parce que loolu c'est pas une hypothèse qui qui est envisageable lii wane ci dënnu Sénégalais yi. élection lañ ah. mais c'est vrai. Mhm. mais yow yow tu ne peux pas gagner Dakar. mënoo gagner Thiès mënoo gagner Diourbel te Kaolack fi ne nii basculé na Matam gi mu yaakaar sax parce que Matam fi ni ni ni bo fa xolé barki Dembo jay président Idrissa Seck fa la jógee wa Matam dañ ko won carrément ne ñun on est dessus et on est des moyens de servir on est les moyens servis par par par le pouvoir de Macky Sall te pourtant ñun lay mbubboo mais jeexna ba paré créer fi affaireu xet sénégalais ñoo mature rek ñun ñoo bëgg jamm ñun ñoo yéenante jamm mais nit ki fi nekk ni même mom mi di wax ni man li ma jaaxal xam nga Sénégal problème mu valeur yi nga xamni mom la Macky Sall yaq lu suul exemple mom ak leader am nek yow di di ŋàññi benn nguur di ko ŋàññi di ba à quelques mois des élections nga ñëw ni moo fi bax lolu moy problème bi yow dama tok di ŋàññi ben nguur diko ko diko di ba élection jub si nga ñëw ni moom laa àndal te munoo ba pare naan je ne suis pas comptable de son bilan lolu ça veut dire quoi mon cher vraiment bu bu leen bu leen bu leen bu leen yaakaar ni sénégalais dañoo ñak fayda le peuple nak est très très calme doux afon ñu tok di sétane ñu yaakar ni dañoo bayyi Macky Sall mu déroulé lu ko neex bañ yaakar ni ñom ci dañi jeex na day yomb maintenant gis nan nak légui nak peuple bi ñi won nit ñi ni ñom fiñu ñu braqué seen bëtt moy espoir bi nga xam tey jii tey kan la muy le président Idrissa Seck té loolu mo leen titel la preuve a nekk tay ji gis nga presse bi ñom ñep bi xey ci mom lañ dal fan yooyu Sonko lu gënoon na tit tay ji légui Idrissa mo nek menace bi ñom ñep moy cible bi waye nak mom mom je l'invite c'est mon frère en tout cas li ma lay wax dal mooy bu ci taq bu ci sori na rafet rek bu dëgg parce que man yéene naa ne sonn nga ngir Macky jóge fi xaw ma ne yan circonstance moo ci Macky waaye man bis bu ñu yoree Sénégal non moom boo ko woon ci Macky moom bi mu newee ci Macky yàggul moom kilifaam muy Abdoulaye Balde te vraiment mbañ demet ñoom seeni dënk man sax lu bu war a war a topp Abdoulaye Balde vraiment <laughs> waaw waaw mais eh, je suis sûr et qu'au soir du 25, je ne dis pas le 24, au soir du 25, quand nous ferons euh, la rencontre pour la fête de la victoire du président Macky Sall dès le premier tour, avec les 64%, je sais qu'il sera à mes côtés. parce que euh, je me préviens tout de suite Tambi continuer mais temps bi on ma Tambi. temps bi moi dafa wax fichier électoral le fichier est déjà en ligne les 85% des Sénégalais ont reçu leur pièce d'identité. Moi, il n'est pas avec Macky Sall, il a reçu sa pièce, moi j'ai reçu ma pièce. Tant d'autres Sénégalais ont reçu leur pièce d'identité. Euh, Lamine, xam naa je euh, Cheikh, man Cheikh, man d'identité. Il y a un sa pièce d'identité, Il y a parrainage, yaa Il y a un ci kaw. tu es un collecteur, sa tour le monde. ci donc voyez pièce de mon collecteur donc je sais que ci et les autres Sénégalais aussi ont reçu mais nous, il faut faire l'effort aussi d'aller tout simplement prendre ta pièce ta pièce d'identité et ta carte électeur ça, on, fait un appel à tous les Sénégalais d'aller récupérer leur carte électeur. Euh, euh, ministre de l'Intérieur, Alim Goundiaï, toutes les élections qui se sont passées au niveau du Sénégal, le Sénégal a un problème de réforme. Ça, je pense que Maxal déjà diminuer, il a amené l'exemple des IR, e les institutions réformatrices. Lors du au Sénégal, tous les ministères de l'Intérieur, avec tous les ministres de l'Intérieur, n'ont jamais changé à quitter tout simplement leur posture de politique. Mais ce sont les hommes politiques avant tout. C'est leur posture politique qui leur permet d'être ministre de l'Intérieur. Mais peut-être d'ici euh, les élections prochaines, peut-être nous avons une autre réforme constitutionnelle que le ministre de l'Intérieur du au niveau du pouvoir. Mais ça, c'est un autre problème. Mais Macky l'avait combattu chez pourquoi il n'a pas accepté pour cette opposition Et qui va gérer les choses tout simplement comme il le faut. Élection y non Macky Sall le cœur des Sénégalais. En tout cas, toutes les élections qui ont eu à se dérouler, que ce soit les élections du référendum, que ce soit les élections législatives, que ce soit tout simplement les élections locales, c'est toujours Macky qui gagne au la main. Donc, Japonani, qu'il y a ni ni donc, il faut ni donc foofu lay jaaraat ak Abdoulaye Baldé nag c'est mon leader il demeure mon leader Donc, ku Abdoulaye Balde, xam c'est un homme d'État à travers son parcours fi mu jaar ku Abdoulaye Balde, quelqu'un qui a été c'est parce qu'il n'a pas le choix quelqu'un qui a été commissaire de la DIC à l'âge de 25 ans quelqu'un qui a travaillé avec Abdou Diouf avant l'ère même de de Abdoulaye Wade je ne parle même pas du Seck ni de Maxar. Abdoulaye Balde était tout simplement avec Abdou Diouf. Abdoulaye Balde a été deux fois ministre. Ministre des Forces armées, troisième personnalité de l'État. Il a été ministre des Mines et des PME. Donc, il a capitalisé à travers toute son expérience. Abdoulaye Baldé rek depuis 2012 où il y a des enjeux après sept ans muy ànd ak moom kooku xaarul dara ci Macky Sall c'est le Sénégal qui l'intéresse euh, rapidement donc ñu jox la aussi parce que moom moo ñu ko jël parole nga intervenir ensuite ñu ñu tëj c'est vrai que li mu wax ci Abdoulaye Balde dëgg la cat du wees kan moo kan moo kan moo kan moo génne Abdoulaye Balde c'est le président Idrissa Seck non non non Mais bu nekkee aux affaires nekkoon ci pouvoir di liggéey président Idrissa Seck moo déniché c'est vrai qu'il avait du talent moo tax mu jël ko indi ko foofu mais Olaf day wax cat du wees

je ne suis pas comptable de sa gestion. D'accord. mais il a toutes les raisons. mais mais nga de toutes les façons. de toutes les façons li may wax daal. xoolal la la nous édifiera incha Inch'Allah. en tout cas li ba y' a un déclic qui s'annonce il y' a une ère de changement qui souffle et rabbi je pas le déclic c'est l'émergence. vous êtes un ami et je connais votre engagement.

mais ñaan nañ yàlla ki koy remplacer dëkk fii tey jii cees gi ñuy yeewoo nga gis ci sa bopp Sénégal gépp gis ci seen bopp ñu xam ne nag tey jii Thiès jii mu toll nii Sénégal mu ngi door am président de la république bi nga xam moom lañu soxla woon muy tey jii nit ki nga xam moom mooy tudd sa Seck. te boobaa. gis ngeen gis ngeen seetaan ngeen ko euh, ni ma euh, mes réalisateurs nu may def si que ne temps bi jeex na. mais dama leen may ku nekk une seconde rek nga nga tàggoo def appel bu la neexee mais une seconde. Euh, je commence par gars parce que je commence par l'autre je vais commencer l'émission. bi bon maa ngi lis d' abord l'émission rafetlu émission aussi prestige Thiès vous nga Thiès génie créatif Thiès macha allah ñu dañuy fier parce que xaaruñu état ci dara. toujours dañuy ñu citer en exemple c'est l'occasion de féliciter votre votre votre votre responsable vraiment il a réussi quelque chose nous sommes fiers de fierté la mais il coup wax ni sénégalais le devoir daf laa war a nga taxaw wax sénégalais yi vérité mais pas di leen induire en erreur ñuy dundaat ci période sombre yi ñu jotoon a travers je pense que sept ans doy na ci chagrin ci métit ak naqar ci li Macky Sall teg sept ans mu toog dégluwul benn kilifa diine dégluwul sénégalais yi parce que yor na dooleem di xàcc di dóor amul kenn ko mën a bloqué tey jii nag nañ comprendre que ni nag le peuple moo am son mot à dire te inshallah le 24 dinañ ko wax. ma ngi sant ñepp di gërëm inshallah 24 bu weer ko bu. donc man limay wax. waaw j'appelle euh, à la paix au calme. Mm-hmm. ci élection yi nga xam mom lañ jëm le 24 février. ñu def ko ci jàmm ñu ngi jub dem voter ci jamm à 18h ñu proclamer ni Macky Sall gagné na élection yi au lamé di wax sénégalais yi né dañoo nekk ci benn dynamique gu émergence dynamique gu émergence boobu ci leen lu bari xawé jàpp naa ne ci Thiès aussi tout simplement ci émergence Macky Sall ci la ko nit ñi donc euh, non ci la amee en fait tu période Macky Sall wax dëgg yàlla kon dig na leen ànd ngeen ak moom wala déet mais ci période Macky Sall ngeen ko créé te amul leen benn problème Thiès nag dafa am ay bagages yu fi ne ah, donc ñu ngi ñaan loolu yàlla na law donc dañoo nekk ci benn dynamique euh, émergence may wax tous les Sénégalais bu ñu sombré wu dans l'aventure d'une rupture de l'émergence du Sénégal nañ bàyyi Macky Sall a ah, def son second mandat ah, il fera il fera encore 5 ans en 2024 nous donnons rendez-vous à Idrissa ah, il se peut que aussi il se classe troisième très bien merci beaucoup kooku mo donc beaucoup mbay nga xamni mo fi togalone euh, coalition Macky euh, président Eh, mu ngi jàkkaarloo ak Cheikh Gaye nga xam ne moom la doon moom la seqaloon waxtaan bi nga xam ne moom moo bokk coalition IDI 2019 vraiment ñu am mbëtte lool eh, recevoir tey ci plateau bi gis ngeen waxtaan bi neex na lool animé nañu malgré que c'est des gens qui connaissent mais gis ngeen quelque fois affrontement bi muy politique moom mel lépp rek pour que Sénégal jëm kanam donc ma réitérer rek appel à la paix bi ñoom ñaar ñëpp def ñu def ko ci jàmm ak ci salaam ak ci transparence important eh, comme ça xale bu ñu passé le 24 ñëpp dem liggéey Sénégal ñu liggéey ko mu jëm ca kanam incha allah leen jox rendez-vous ci beneen émission plateau de la campagne jërë ngeen jëf merci beaucoup. je vous félicite. merci beaucoup mon frère. président la délégation sénégalaise. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen sant bu baax. je tiens d'abord à dire à tout le monde que ñàkk xam baaxul. il y a le développement humain et la réussite. Madi Kenya qui va diriger demain le Sénégal.